asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel fépp fu waay nekk rekk ñu ngi la fay fekk di lu nuyu di la jox sa wàccuwaay Euh, comme ni ngeen ko xamee tey nag nekk euh, màggalu Daaru Xuddoos ñu ñëw fii nga xamante ne ni moo la ci jumaa ji fas yéene euh, daje ak ñi nga xamante ne ni màggal gi moo leen tax a jóg mu di pèlerin yi ñu fas yéene sekk ak ñoom waxtaan rek laaj leen naka lañ dundee màggal gi ak yan sentiment la ñu ressentir tey parce que ku nekk xam nga ne màggalu Daaru Xuddoos nekk na màggal goo xamante ne ni macha allah du màggal gu ndaw donc ñu daal di tase ak ñoom rek waxtaan ak ñoom gën a yaatu ñu waxtaan bi jërë leen di ñoo ngi fay baax. Mourtala Kéré maa ngi sant yàlla bu baax a baax rek sant bu baax a baax am yëg-yëg bu rëy ngir bis bi képp koo xam ne suñu borom dogal nga xam ne waral bis bi mu jub Seexul Xadim ñëwoon tey fii ci dëkk bi fanaan si woon tey wax dëgg boo gisee mbooloo mi ni ñu baree mbooloo mi wuy si nañ macha allah yëpp a ngi dox kon sant yàlla bu baax rek di ñaan yàgg koo fekkee ci barke Sëñ man fii laa nekk fii laa dëkk man man man ci liggéey bi laa bokk. waaw ci liggéey bi laa bokk waaw. côté organisation waaw waa Hibaayil Khadim waaw am na la waaw mais xam naa nag foofu lañuy ñu kii rek allah. dana santaat sëñ Touba rek di xeeb lin fi di xeeb cant gi ndax man na na bis bii moom mooy bisi bis bi mu xëyee woon liggéeyal yi boroomam boo ba muy xëy. dem mu dem ba fajar mu mu waaxuwaat na day dellu si kër gi sunu borom fàttali ko na ko sa kër gi waroo ci woon a delloo si kon nag ci bis bi bis boobu 18 mooy 18 safar ci la xëy woon liggéeyu boromam ba ba bis yu tey bii ci la dellu si waat Touba kon nag bis boobu ñu war koo màggal ñu war koo sa gën a santaat sañ tuubaa ndax bis bi lu am maanaam ci diggante 18 safar ak bis bii moo ñu ko may. kon nag dañ ciy gën a santaat sëñ Touba rek nga xam ne moom lu nu am diggante boobu moo ñu ko may waaw kon eh, samay wax du ci bari loolu rek la digal ah, man ah, fii laa dëkk waaye Mbour laa nekkoon waaw Mbour laa nekk di liggéey waaye sànq laa ñëw waaw. waaw gën a moom kay gën a santaat sëñ Touba rek na li ma wax rek ne diggante 18 safar ah, ah ba ba ba ba isiru muharram bi lu nu am ci bis boobu lan ci diggante ñaar yooyu lan ko am xanaa ñu bu gën a santaat sëñ Touba rek. xam ne nag danoo war a ku muy góor di jigéen kenn ku ne danga war a gën a laxasaayu liggéey sañ Touba ndax sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi ne daf ne lu waay def doyul te bu ñu ke bu ñu bu ci kenn mag mooy fa mag ña woon ñun ñii bu buñ góorgóorloo la mag ña amoon ñu am moo tax mu ne bu ñu ci kenn mag barke borom Touba. xanaa gën laxasaayu rek na liggéey sëñ tubaa moom. jombul kenn ndax sëñ tubaa moom moo ne ku ma defal loo man ma defal la loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la lu la jomb kon nag fi mu toll nii ci lu ñu jomb ci lan ne kon ku muy góor di jigéen kenn ku ne da ngaa war a gën a laxasaay waat gën a liggéey sëñ tubaa loo def nga xeeb ko ndax bu doon ak moom kat lii nu am duñ ko am ndax moom man damaa gëm ne sëñ euh, Rasulullah yi mooy gën gi mbindéef waaye sëriñ tubaa mooy mën gi mbindéef gannaaw yonent bi li mu fi def kenn defu ko ndax moom ba ñee ña ànd yonante bi ña ànd ak àndoon ak ñoom mbooloo la noonu waaye moom bi muy dem kenn rek la te mayoon noon ko fukk mu ànd ak ñoom waaye daf ne yàlla ak yonante bi rek doy na ma wéttal kon ci lu mu am ci yàlla ak yonante bi la ko ame kon nag kon ñun ñëpp war na noo gën a laxasaayu xam na kenn ku ne loo def rek war nga koo xeeb. a baax sant Serigne Touba ñu ñëwoon tey fii ci màggal gi màggali Daaru Xudóos nga xam ni bu doon sago képp kuy jullit képp kuy murit nga fekke ko kon ñu ciy sant sunu borom bu baax a baax bi mu jaglee loolu ñu ñëw fi tey ànd fi ak sunu responsable nga xam ni ñoo nekk fii ci département bi moom ñoom Serigne Massamba ñoom Serigne Mbacke Aydara ak ñëpp ànd fi tamit ak ñu bokk ak man parti bi nekk secrétariat national ca Dakar ñëw bokk ak communauté murit bi bis bi bis bi nag bisu xéewal la bisu ñaan la bisu teraanga la moo tax ñoo ngi ñaan ci barke boroom bis bi barke sëriñ Touba lépp lim fi digle ci xéewal yàlla dal ci askan wi xéewal yooyu dal ci Sénégal xéewal yooyu dal ci àdduna bi di ñaan sunu borom jàmm gën a yàgg ci biir Sénégal di ci profité ci bis bi tamit di ñaan kii ci sama xarit di sama wóllëre nga xam ni sànq rek ñoo ngi annoncé que dafa tawat yàlla yëkkati ko ak jàmm di ñaan tamit yàlla génne ko ci fële mu nekk muy prison bi nga xam ni moom la nekk xëy na duma ci mën a xuus ndaxte bis bi laaju ko wante loolu rek laa bëggoon wax loolu rek laa amoon kàddu message yu jub jubal message yu jàmm bu yaatu message yu ubbi dënn yi message yu gëm yàlla wóolu yàlla message yu xam ni ala kulli ali dañu ñëw ci àdduna mais dañu fiy jóge li am solo rek mooy bin fiy nekk li ñuy def ci lu rafet li ñuy def li nga xam ni ëllëg ku ko nettali ñi la wuutu duñu rus loolu la ñëpp war bàyyi xel kon ñi jiite réew mi tey war ko bàyyi xel ñu yàlla war indi suba war ko bàyyi xel du bisib politique moo tax du ma ci mën a xuus wante ñoo ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. ñoo ngi lay fay. Ndeye saw waaw. waaw xanaa neex rek. mu sedd sama xol siyaare naa ni ma war a siyaaree sëñ Cheikh di sunu sëriñ ñu ñëw siyaare si dawal sunu oto ba mu ñëw ñu gaare siyaare yendu ba jant bi sa ñëw ci bayti gi nag mu neex lool mbos lañ jógee ba fii. waaw sama xol sedd guy bi ma diggee barabu sëñ Saali damaa jooy ba mënumaa téye sama bopp ndax bëgg ko sama xol Daaru Xuddoos ñeenti at a ngi nii ma di fi ñëw te at mi mooy juróomi at saa ma ñëw rek at mi mi ñëw mooy dàq mi ci des sama xol sedd guy nag sama xol sedd na ba mënuma li ma bëgg a wax lépp mënuma koo wax ndax xol bu sedd barke sëriñ te soxna Joor Diouf dëkk Mbos dikk xanaa xol bu sedd guyu rek di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgga def yàgg koo siyaare ci barke sëriñ Touba ndax sëriñ Touba kan moom yaakaar naa lim doon sonn ñun ñun julliti yàlla yi ñun ñoo ko añee kon nag noon ngi koy ñaanal rek fam tëdd yàlla na ko dàqal fi mu jóge ci barke yonent bi suñu xol sedd na guyu nag bani tuut tànk nag ba nag ni noo ngi ñëw daal xuddoos di màggal si ndax ñun taalibay sëñ Moustapha Bassirou la ñoo ngi sant yàlla bu wér di sant Serigne Touba bu wér a wér a di leen sant. xanaa ñu takku rek te doon ay murit saadex di ñëw Touba di siyaare si di ñëw Daaru Xuddoos di ñaanal sëriñ Touba nag ndax lii lépp mooma te nun am lu nekk mooma te nun la doon sonal nun la doon jëfal kon nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may suuf si seddu guy ñu yàgg koo siyaare ci dara jee yonent bi jërë jëf yéen itam yàlla leen fi yàlla yàggal. waaw ñoo ñëwoon siyaare si màggal gi. màggalug sëñ Touba gi xam ne loo fi ñaan yàlla may la ko ndax pas-pasam yéeneem ak lim ñu yéene yëpp si lu baax yàlla defal ñu ko yàlla may ñu gudd fan nag wér sutura ak teraanga njaboot gi ak mbooloom jullit yàlla nañ ko yàlla maa ngi jóge Mbàkke waaw Mbàkke laa jóge xanaa kontaan rek nag <laughs> sant sëñ Touba di santati rek nag ñu ñaan xéewal yi yokk waaw defal ñi ko defal ko mbooloom julli defal ko senegaal yëpp nag ndax Sénégal mooy ñun buñ ko defaree rek mu baax yàlla na ko yàlla defar